Euh, ami internautes ami téléspectateurs de la Teranga Sénégal TV euh, niñ koy Safo, lañ koy defee chaque jour euh, si loolu noonu ñu ngi fii Wally daan Cette coach daam bi nga coach Africa Sport Academy ku baax franchement man moom xam naa si dara moo tax si loolu noonu dañuy dem lan nekk biir Africa Sport Academy saytu fa wax ak moom wax ak benn joueuse après ñu revenir là, sama sama mbokk téléspectateurs yi maa ngi leen di jaajëfal dama doon di filmer rek. alors ami internautes, ami téléspectateurs, euh, tey nag dañu ñëw ak numéro biir Africa Sport Academy bi nga xam ne nii am na les handisports en même temps Nous nga xam ne jouer basket tey dañu ñëw seet le coach Dame ba si biir terrain si loolu dañ koy bàyyi mu coach Dame ñu ngi lay ziar. waaw ñu ngi lay ziar euh, bu baax di vraiment euh, émission bi ngeen def man maa tudd coach Dame di coach Africa Sport Academy. Euh, man man ma créé aussi Africa Sport Academy di am contenté bu rëy vraiment ci seet bi ngeen ma seet si fii suñu centre bi. alors coach Dame est-ce que mën nga ñu expliquer parcours bi jusqu'à nekk fii euh, ci terrain bi nga xam ne ni mooy ASA. Mhm. waaw loolu de moom dina ma neex trop parce que euh, avant yombul woon quoi parce que man xam nga dama génnoon réew mi. Mhm. bi ma génnee Nigeria laa mujjee woon nek def naa presque 5 ans. Mhm. ma fa nekkee ba nekk fa comme joueur professionnel di lu fi fa jouer après ñu dem ba benn kii ñu woo ma ni ma sama wajur góor dafa génn àdduna xam nga rek wajur wajur bu góor nu mu mel ci doomam instant yi gisatu lu dul ñibbisi si laa nii damay ñibbisi daal bi ma ñibbisee nag vraiment ma bëgg dell del delluwaat foofu pour eggalee sama basket foofu si club bi ma newoon mais xam nga yaay moom ak nu mu mel doom doomam mu doon ma ñeewantal daal mu ni daal bu sañoon ma toog fii si comme dama nek ak sama raq te buma démé sori len tamit encadrement bi day dess vraiment avant metti wona trop parce que bobu bëggon na dem parce que bëggon na jappalé sama yaay vu que ni sama papa nekatu fi mais comme tamit wahi wajur wala wala la non la mujjé obligé ma tok ba beneen instant ma dal man dal pourquoi pas tok bi ma nar tok ni ak sport bi mom la lan dund. Euh, donc maman bobu non da nga arrêté won ce sport et tout. waaw dama arrêté won sama sport parce que tok na presque ay 2 ou 3 mois yo xamni ah. defuma dara parce que. sport bi tax kii wootu woon quoi parce que xam nga rek waajur bu góor nu mu mel si doomam ak génn bi may génn yëpp nga xam ne promesse yi ma defoon sama papa ak yooyu moo taxoon ma gënoon bëgg a génn léegi nag par la suite si la def sa euh, di def ay démarches ba benn jour ma ñëw fi gis mu nekk endroit boo xam ne vraiment dañ ko abandonné mu bari ay ñax gis fi ay fas ak mbaam xam nga gars yi occupé woon ko daal. kon bi ngay ñëw da nga fekk fii normalul comme nii. non non melu woon nii. fii daal yaa ko aménagé sa bopp. waaw bu ma ñëwee kii laa fekk Anisport laa fekkoon mu ne fi. Mm. ak euh, waa taekwondo. ñom ñol leen fi ne waaye vraiment ni mu meloon état bi mako fekkon mom xawon na doy war trop mais si la def samay démarche ak wa koñ bi wax leen li ma bëgg ak wa maire bi tamit bañu autoriser ma si la ñëwé mani dal affaire bi dal do fi tok bana da ngay am ay say moyens da ngay am say petit moyens yi ngay am nga démarrer non la démarrer ak wa ak samay petit moyens yalla def ba ma commencé ko ak euh, ben euh, tournoi bo xamni dama don démarche ba tek euh, ben ki moy One Africa waxta wax leen ko ñoom ñu ni vraiment loolu di leen intéressé si laa démarré tournoi bi après tournoi bi jeexee ma xamal leen nag vraiment fii dama fee bëgg euh, créer benn académie si noonu laa démarré ndànk ndànk ndànk ndànk yàlla di ñu dimbali ba ni nga gisee tey jii nii. pour résumer daal ba yàlla def nañu instant bi am nañ tous les catégories daaw ñoo nekkoon euh, finaliste euh, championnat départemental en cadette avec les filles. ji góor yi tamit quart de finale lañ toogee vraiment sant yàlla la quoi sant yàlla la sant yàlla la comme daal noon laa la ko mën a tëngalee si résumé rek xam nga. Euh, est-ce que mën nga ñu wax tuuti si organisation terrain bi. waaw catégorie yeeg yooyu noonu. waaw organisation terrain bi mu fi am na am nañ fi déjà ñetti coach muy coach Bouba ak euh, coach Fatou léegi coach Bouba moom mooy coach coach junior senior yi coach Fatou moo yor euh, minime fii man man maa yor minime garçon ak euh, cadet yi. Euh, aussi en même temps tamit nekk adjoint ko sufaatu di ko jàppale parce que affaire yi moom noon la. vu que ni man maay man maa man maa man maa fi man maa jiite mais tamit ñoom nekk nañ ñoo xam ne xarañ nañ ci seen liggéey. moo tax ñun noon noonu la ñu kiiyee am nañ tamit suñu directeur technique muy wax monsieur Ngiraan moom it aussi mu ngi fi xam nga am nañ tamit euh, président des parents d'élèves comme Pa Cisco lañ ko gars yi gën a xamee. waaw mu ngi fi. moom vraiment moom it moo fi nekk comme loolu aussi xam nga loolu moom daal noonu noonu noonu la centre bi doxee kii yee daal. alors euh, est-ce que yéen a ngi formé ay nit yoo xam ne ni dañ leen di jaay à l'étranger. waaw ñun ñu ngi formé euh, du ma ni jaay tax parce que ñun daanaka dañuy formé di joxe rek parce que en général ñu fi jógee yëpp euh, dañuy yenn saa ñu bénéficié ay bourses États-Unis ñenn ñi Japon ñenn ñi Espagne ñenn ñi France mën naa tudd ay quelques tours ku mel ni Pape Fall Kader. Euh, Saliou Diop Mouhamed Diallo maanaam pas mal daal am na ñoo xam ne formé nañ leen fii yàlla def ba ñu am seen wërsëg euh, euh, bénéficié wu benn bourse. j'espère que ñooñu tamit ñu ngi leen di gëstu. ah ñooñu de mën naa ni gëstu bi moom. xanaa bu paasee ku mel ni Ndeye Couma ndax gis ngeen ko fi camp bi mu fi defoon daaw vraiment kooku daal laa xam ni dëgg yàlla mu ngi ñuy gëstu parce que bi ñëw na fi defi camp may ñu ay ballon. mayo yi xale yi sol am na yoo xam ne moo ñu ko may vraiment ñëw partager ak ñun def ñun camp boo xam ne moom daal mu ngi ñuy gëstu mais les autres peut du ma ni peut dama jàpp ne dañoo amagul rek waaye xanaa yaakaar naa ne fii biñ fi ñëw gis nañ ni mu demee woon te yaakaar naa buñ génnee li naan euh, don't forget where you come from waaw nit ki a nga jógee waroo ko fàtte te gis nañ fi situation yi yombul centre yi ñun dañuy dégg dañuy kii rek jàppale xale yi amour moo fi ne mais du xaalis du dara parce que bu doon xaalis ba tey banañ leen fi seeti leneen kon yaakaar naa ni gëstu tamit am na solo trop même bu dee benn banoo tax nga ñëw vacances jox ko coach bi dafay neex loolu ndax ñun ñu si ñoom xaalis xaaruñu ñu dundal leen ñu dundal ñu bokk yàlla moo ñuy ñun yàlla lañ yaakaar suñu yëpp waaw Euh, donc est-ce que gis nañ fa ay xalé yo xamné machallah ñi ngi basket lu rafet ñi ngi basket lu set est-ce que ça va arriver des fois nga leen di libérer ñu dem si yeneen équipe même bu dul feneen sax si yeneen équipe bu Thiès yi. juste pour euh, porter nos à ça Africa Sport Academy si yeneen équipe euh, pour genre pour ñu jouer ou quoi. waaw loolu moom amuñu ci problème. man ñun moom leen rek la ñuy bañ parce que lépp loo gis dafa am yoon. te nit da ngay am kilifa. parce que yaakaar naa ni mënoo ne fii nga nekk xale. Euh, débuté fii nekk minime parce que yàlla def nga nekk minime dem dem ba yàlla def nga yor yenn niveau yi pour man loolu moom bu ñu gisee équipe boo xam ne vraiment bu ñu yaakaar na ni boo fa demee di nga fa gagné plus te aussi sa basket dina gën a feeñ ñu xam la tamit dinañ la bàyyi mais na nekk si yoon rek soit bu la coach bi gisee bëgg la bu ñëwee wax ak ñun dinañ la libéré amuñu problème boobu. ñu li ñuy bañ daal mooy comme ni ñeen ñiy def rek nga former sa joueur ba yor yenn niveau yi ñu jaar suuf récupéré ko waxuñu la ci dara nga xëy suba gis ko ci club bi coach bi woowu la wax la dara ñu daal yooyu yooyu lañ bëggul tey yooyu nañ ci profité si occasion bi ndax wax ko si parce que yooyu day indi ay problème yoo xam entre cause te du ko jar parce que xale yi moom parfois xam nga am na ñoo xam ne dañuy tourner rek ay pigeon voyageur la mën nañoo nekk fii tey suba ñu nekk fële mais loolu ko subee koy bañ parce que nit bu jugee terrain jaamul ñëw war nga koo laaj lu tax mu jugee fa wala nga woo ko sëm wax ko ni ko ah diw de fi loolu dina permettre yenn yi ko parce que sinon boo seetloo si di jouer jeu boo xam ni leer ni ay comme si que day faj mer te loolu baaxul daal ñu ngi profiter si occasion bi ñu ci bàyyi xel mais ñun amuñu problème boobu parce que le fait que ñuy bàyyi ay joueurs ñuy dem États-Unis Japon ak yeneen dëkk je pense que bu ñu gisee beneen club boo xam ne mën na leen apporter dañ leen di bàyyi ñu dem amuñu problème boobu. alors euh, l'autre fois on avait assisté à une conférence de presse pour ramener, c'était la fédération basketball. Mhm. Euh, si championnat petite catégorie bi gisoon la fa mhm. ça veut dire que yo tamit tu es partant. si mhm. championnat petite catégorie bien sûr ñun pouvons nañ depuis dépêcher parce que tamit boo euh, comme li nga normalement ma laaj sang, loolu la parce que booy yi boo fi nekkee di. former chaque jour rek di di def ay simulage loolu du leen doy parce que dañuy gis seen morom yi jouer championnat xam ne ëpp ñu leen niveau soo géewul da dañuy obligé di tasaaroo ci équipe yi pour tamit ñu invité loolu ñu ñu bokk comme suñuy morom parce que boo ñun formation bi lañ gën a woon basé wu pendant des années bañ demee ba xam ne instant bi nag jot nañu wane suñu bopp moo waral ñu bokk bokk si championnat yi loolu moo waral moo ñu woon suñu teewaay si ligue bi parce que tamit comme reconnaître nañ ñu aussi am nañ droit bu ñu réunion jotee ligue bi yëgal ñu ko ñu teewee tamit teewal fa suñu équipe xam lan lan comme championnat bi day waaye commencé ñu xam kañ lay commencé ak nu muy doxeek yooyu ñu mën see préparer suñu équipe yi. donc ça veut dire yéen pare ngeen. ñun kay pare nañ. waaw parce que am na fu ñu tolloon daaw te bëgg nañ euh, comme niñ ñu demee woon finale en en fii. Mhm. dem quart de finale en euh, quart de finale en euh, quart de finale en garçon. aussi bëgg nañ ren tamit jël coupe yëpp jël coupe yëpp loolu moom bëgg nañ ko. raafale daal waaw raafale moom. petite catégorie moom ñun moom dañoo ñëw incha allah ñaan suñu borom may ñu coupe bi quoi mais bu dee senior yi en D2 moom suñu objectif rek comme ni naan demee rek daaw dañoo ñëwoon pour participer gis def nañ suñu résultat ren aussi day ñëw beneen objectif parce que affaire yi tamit noonu la doo ñëw rek bëgg a buree état bi ni for force lii da nga koy yur parce que fekk fi ay équipe yoo xam ne def nañ plus de dix ans presque nga bëgg a ñëw rek noonu du demee noonu mais chaque année rek ak objectif bi ñuy demee daal. alors euh, quelles sont vos ambitions envers le monde sportif surtout bu Asa parce que Asa moom ñëpp xam nañ ni coach daam moo ko moo ko moom sax laay wax. Mhm. parce que ba muy métti tamit yaa fi nekkoon. maa fi ne woon dëgg la waaw. waaw man sama ambition moom mooy tey jii euh, coach yi fi nekk ak joueurs yi fi nekk fépp foo mënti dem si si monde bi nga mën a représenter non seulement Asa waaye nga représenter euh, Sénégal. ñun en tant que coach tamit suñu rêve mooy ñu nekk ay coach yu mag dans le monde di voyager comme ni ko ñenn ñi defee di mën a apporter suñu. ëpp di expérience bi ñu am le monde sportif parce que lool bokk na ci suñu objectif ba que bo xolé euh, semaine bi passé rek euh, amna gan buñ fi jigé won fé Le Mans ñu koy wax coach Philippe vraiment muy bokk muy ancien coach bo xamni xam-xam kessé la euh, même bo duggé internet di demander ko di nga gis vraiment def na lu bari bari ñëwon na fi partager ñun expérience am ñu nit ñu jang ci parce que tamit ay jeunes formateurs lañ ñun chaque jour duñu doyal si jang, ndax tamit xalé xalé yomb te yor. parce que entraîneur ak sélectionneur bokkul. entraîneur moom mooy ne si naaj bi chaque jour di entraîner xale bi. kooku day xam xale bi. kon kooku xam-xamam daa war a def chaque jour muy jàng plus waaye warul ni euh, mu jàng mu fay yem rek waaw ñun daal bëgg nañ un jour ñu am académie bu mag boo xam ne tax ñu ñoo koy moomal suñu bopp dañ mën a euh, loger joueurs yeeg comme tey ni nga gisee équipe ñaning bi ñëw fi am bisu boppam vraiment gis ngeen organisation bi ñu am ñu ñu am lu ëpp loolu mën a jël booy en charge. les conditions ci condition yu baax ba macha allah ba li ñuy li alors euh, on a vu pas mal de ay ay xale parce qu'il y' a tous les catégories ici euh, c'est Africa Africa Sport Academy. Mhm. genre gis nañ tamit yar am. Mhm gis nañ ni xale yi bari nañ fi et tout ah, on a même vu sax joueur bu joueur yoo xam ne ni yaa ngi leen ni poussé pour ñu ñu ñu nekk si arbitrage bi genre fii bu marché wul fee dina marché léegi aussi côté côté sport étude bi vous en êtes où waaw yi non foofu foofu moom dañ ci kaf dañ ci ree parce que boo xoolee pas Bouba chaque samedi wala mercredi xale yi bu ñu ñëw daneen laaj ñu indi seen note ñu xool ba xam soit école bi yaa ngi am ay moyens yu baax wala déet soo ko amul dañ lay arrêté parce que tamit étude sport lañ wax te na bi mënoo foo mënti dem soo jàngul wala am moyen yu baax tamit même ñi fi bénéficier ay bourse daa fekk seen note baax école moo tax ñu mën a am bourse pour mën a bénéficier wu ko dem États-Unis Japon yooyu kon fii jàng yi moom dañ ciy loolu moom dañ ciy taxaw dañ dañ foofu moom amul amul tax demal amul amul ne waaw amul neexal gars yi quoi dañ ci dañ moom moom boo ngay ñëw am moyen baax wala ñu arrêté la waaw waaw foofu moom jàng bi moom kafuñu si réewuñu si moom da ngay ñëw indi moyen yu baax ñu bàyyi la nga entraîné nga nga ñëw indi fi ay sous moyen ñun la arrêté ba keroog nga ñu mën a indil moyen yu baax parce que tamit ñun non seulement nekkuñu ay coach rek nekkuñu entraîneur pour xale bi rek mais éducateur lañ parce que xale bi basket déjà discipline la boo discipline doo ko def te aussi mënoo ni yow da ngay ñëw topp basket bi rek te doo jàng na xale boo xam ne amagul 18 ans mu ngi soog a commencé addunaam te yow coach bi yaa war a encouragé te ñun loolu lañ mënal paanaay dimbali leen mooy parce que gis nañ ni coach euh, xale bi ni muy ragalee coach bi cër bi mu koy jox peut-être parfois du question ko day du jox cëram papaam de mais dé déggal bi muy déggal ko parfois bu ko ne tey boo indiwul moyen doo am li parfois parfois par rapport na ko wax mun ko wax maa ngi jàng bañ a jàng mais bu dee costume moom da koy dëgg te li mu ko wax dina ko def ndax a jouer ndax bu ñëwee tey bëgg wala comme Zimalas say moroom bëgg a jouer ñun la dosé xam nga xale moom boo ko yooyu noonu genre si noonu nga mën a profité pour mën koo li bëgg mu defal la ko daal waaw côté boobu may kii ba pare xale yi tamit aussi dañ leen di encouragé gisoo comme ma sànq yi ni nga ko waxee dañ leen di encouragé dañuy parfois dañuy gis koo xam ne day dugg si biir mel ni ku loolu yëpp manque de confiance mais yow coach bi yow yaay def remarque si loolu nga encouragé ko mu yàq nga encouragé ko noonu nga koy def ba mu bokk si match bi parce que boo seetloo sànq match bi ñu avec les minimes contre euh, équipe de Nianing bi am na ñoo xam ne commencement bi dañ doon nelaw mais manque de confiance boobu coach bi moom mooy dem ba xam ko si joueur bu ne parce que am na joueur yoo bu ñu si match rek bu rythme bi changé da ngay gis ñu commencé tiit mais au fur et nga leen di encouragé yooyu noonu da leen di may fit tamit si nii comme simulation yi moo ñuy permettre ñu préparer suñu championnat yi quoi waaw parce que championnat bi xam nga beneen niveau lay doon du par rapport ak ay simulation yi bokkul quoi waaw te ñun si simulation yi la ñu profité pour évaluer suñu lu ñu liggéey si semaine beeg wala si mois beeg yooyu daal waaw affaire bi daal alors euh, ban conseil ngay jox euh, joueur wala joueuse yi nga xam ne ñoo nekk si basket bi parce que tamit on duñ ko nëbb quoi basket amul naxante amul caaxaan soo naxantee ak moom rek dafay feeñ ci ci ci ci ci kii bi ci cadence bi ngay yor euh, yan conseil nga leen di jox. waaw man li may jeunesse su léegi li ma leen di maanaam li ma leen di conseillé mooy ñu xam ni sport bi caaxaan newu ci parce que bu ñu demee ba Sénégal tey boo xoolee. yenn équipe D1 yi di fay joueurs yi yenn somme yoo xam ni xalaatuñ ko woon kon caaxaan nekkatu waxanduma laa nag ndax bu njëkk ba nit ñi boo leen xool li ñuy xalaat Europe États-Unis rek mais même Sénégal fii am na ñu fi nekk ñoo xam ne ñu ngi ñu vraiment ñu ngi siy génn si basket bi ah te léegi maanaam lépp dafa yom par rapport ak bu njëkk ba kon pour man en tant que jeune danga nga war a ni man mii fii ak un an deux ans trois ans bokk war naa mën a réussir si basket bi wala ma xool leneen lu may def parce que basket du temps du la xaar parce que chaque année âge day day gën day yokk kon nag temps bi nga am ni concentré wul si jàng bi bu baax ak si basket bi fexe am fulla am fayda def ni parce que sa moroom yi xëy réussir fulla ak fayda rek moo leen ko may gënuñu la kon nag mais nag li gën a bon mooy tey tey nga nekk si basket bi suba nga nekk si leneen tey nga ñëw suba doo ñëw ginnaaw suba nga toog amu sens mieux vaut nga nga arrêté nit ki boo nekkee si dara ci nga si def sa fulla def si sa fayda ñoo xam ne lii gëm nga ko bëgg nga ko yàlla suñu borom mën la jàpp ndax yàlla buy dimbale day dimbale nga xam ne bëgg nañ tey ji boo jëloon kàmm gu xóot du ko dugal si ay basketteur su ma ñëwee di dimbali ñi ma ñi tàllal seen loxo laay xëcc ñu génn mais du ñi nga xam dañoo croiser les bras toog di xaar ku leen génn kenn dafa dugg leen génn waaw noonu la fa demee rek maanaam ni ku nekk effort yi ngay def effort yooyu lañ lay mën a dimbalee kon boo nekkee si fii comme li may wax booy rek man leen chance bi ngeen am ñu nekk nañu ay cause yoo xam ne chaque jour ñu ngi xool lu leen avancé la kon boo leen amee cause yu mel noonu da ngeen di góorgóorlu gëm seen bopp am si fulla am si fayda bàyyi taxawaalu bi baay di dug di ànd parce que tamit li ñuy wax rek ay xare ki xara mën a ànd ay bëy ki bëy mën a ànd nekk parce que tër di ànd ak koo xam ne yow deful dara jàngul deful dara wala bokk bokku leen ay ay ay ay ay bëgg-bëgg ay ambition loolu man da ngay ànd ak ki nga xam ne yéen a bokk même niveau d'égalité yéen yéen ay xalaatoon li ngeen xalaatandoo yéen a koy xalaatandoo yéen a bokk même bëgg-bëgg am comme ñun bañ nekkee ay temps booy dan naan ñoo nag ñun ñun lan àndal ñun ñëpp ñoo bokkoon li ñu bëgg trois heures ma ne nag jugee nañ ko dem terrain daay di ko di ko entraîné ba benn paa daan noot di ñu dàq ji benn jour am na benn jour loolu yëpp bëgg-bëgg la ak gëm-gëm la loolu laa yenn saa ma joxe exemple boobu booy ñu ree affaire bi daal amul secret on récolte ce qu'on a semé nit ki mënoo mënoo bay dugub am gerte waaw boo bayee dugub dugub ngay am bayee gerte gerte nga am ba pare discipliné surtout discipline sport dafa laaj discipline li naan la discipline ne coûte rien mais gagne tout nit da ngay discipliné nit am na am na mën naa ñàkk niveau tax mais Euh, yar yaram moo ko man moo mën na koo dimbali yóbbu ko fu kawe bi daal loolu rek laa am comme conseil ñu ñu euh, xale yi ak euh, ñun ñëpp daal ñu ñu gën a góorgóorlu jàppale sport bi tamit surtout petite petite catégorie bi dañoo am négligence surtout coté Thiès bi nii am nañ ay formateurs yu baax yu bëgg yu am engagement am nañ ay techniciens yu xarañ am xam-xam mais problème bi mooy côté financier bi moo am problème keroog sax euh, on avait ben émission boo xamné ne V-Sport la tudd. Mm. ñu ngi doon wax lu bari bari bari parce que conférence de presse bi sax fofu lañ ko fofu lañ ko dugal. Mm. mais on a su que euh, bi biñu biñu ñu bi ak coach gas nee mm. euh coach sax dañuy cotiser pour pour pour Dougal ko ci affaire bi mais loolu c'est anormal on a le ministre des sports boo de ne mi ngi mhm. on a aussi euh, DT bi mi ngi on a tout man je me dis que là le problème bi quoi. Euh, basket sport le comme sport yi dañ ko war favoriser. Mhm. franchement il ko war favoriser. waaw loolu mom, loolu mom, loolu mom. côté boobu mom, vraiment dafa des lu Paris centre boo dem comme ñun par exemple boo xoolee. bu paasee yenn partenaire bi ñëw di ñu may ay matériel ay ballon comme ay maillots yi ngay gis nii ñu koy sol comme kii lament bi ma loon la wax noonu mhm. parents yi ñoo ñuy jàppale yenn saa yi am benn ñaari bonne volonté yenn saa yi ñuy voyage ñu may ñu benn somme ñu boole si ak cent franc yi booy def chaque mercredi chaque samedi genre détail yooyu moo ñuy dimbali mais da ngay gis par exemple tey jii ay autorités yi ne fii war ñoo jàppale mais dañuy solliciter ba sonn mais après du ñu am benn suivi favorable ñu ñu obligé ñu dem ak suñuy moyens yi ñu am te boo xoolee football bi macha allah gis na ren yàlla li mu ñu def parce que coupe yëpp jël nañ ko coupe d'Afrique yëpp jël nañ ko quel est le problème te pourtant bu njëkk ba basket ñoo amoon loolu. Ah. dan basket yi dañ naan wax footballeur yi yéen moom mosu leen fee indi coupe mais léegi inverse la.

ak ay joueurs sénégalais yoo xam ne ñu ngi représenté seen équipe Sénégal dignement am niveau boo xam ni vraiment ñooñu day leen bu defoon les moyens qu'il faut rek ñun du amati ay problème ci côté bépp kon nag war nañoo xoolaat fédération yi war nañoo xoolaat bu baax vraiment basket bi parce que tamit bu dee parce que tey jii lu mel ni talent Thiès yoo xam nga si daal da ngay xool ñaata talent lay lay am foofu ñaata centre ñoo fay daje vraiment loolu yëpp mais ñooñu tey. équipe yooyu noonu mënoo mënoo ni mënoo faa créer douze boo xam ne tey mën na représenter tey région de Thiès man ah mais parce que mais il faut ñu def les moyens il faut ñu def les moyens pour mën a jàppale basket bi surtout les autorités Thiès xoolal Dakar lan moo lan la ñu rawee parce que seen autorités yi dañ leen di dimbali mais Thiès fii da ngay solliciter ba sonn ba mu jëndee bi da nga naan yow ci préfère nga toog tax yow li nga am nga def ko quoi waaw te tamit boo ko naree wékk si xale yi du mën a dem parce que xale yi boo leen dee cotiser chaque chaque fois bu yàggee tax yenn parents yi dañ naan yéen coach bi li muy laaj daa bari day yaakaar ndax yow pour moom la fekk yow yow yow yenn saa da nga jàpp ngay war a voyage benn booy ni la awmul wala ñaar cinq yaay obligé cotiser le pour pour pour pour ñu mën a dem parce que mënoo yenn saa yi mënoo dem yenn war a jouer ji ba pare bàyyi yenn yenn joueurs yi ginnaaw quoi loolu daal war nañ cee jàppale waat bu baax centre basket yu nekk Thiès daal d'accord donc dañ lay bàyyi nga wax sa mot de la fin en envers TSTV waaw TSTV ñu ngi koy gis ñu ngi koy remercier bu baax vraiment parce que lii ngeen di def nii Euh, mënoon leen cee bañ a fekk parce que tamit ñun ñi tamit lu ñuy liggéey dañuy dañuy bëgg nit ñi di ko gis ñu xam ba xam ñun ñu ngi liggéey wala wala tamit fu ñu toll kon yéen bu leen defee seen déplacement uniquement ñëw pour jàppale ñu pour wane tamit liggéey bu ñuy liggéey pour tamit euh, man ñoo permettre tamit euh, askan wi Thiès dégluñu tamit loolu dañ leen siy sant leen gërëm ndax gis nañ seen taxawaay si sport bi cees vraiment talent Thiès yi ma dem yee gis naa chaque fois yéen ñuy accompagner

on va faire savoir et comprendre sur le monde basketball gis ngeen wax nañ ak coach Dam. franchement nit bo xam ni baxna na man xamna ci dara parce que nekkoon na ci centre am te yu bari def nako ci man aussi comme il vient de le dire li mo fi nek. propre moyen am la démé ba nek fi mu nekk donc ñi ngi wo ñëpp dal pour ñu ñëw jappalé ko franchement parce que mérité nako ñeneen ñu ñu jaar ñu dem jàppale leen moom bëgg naa mu bokk si ba buñ fi ñëwaat gisaat fi beneen yokkute si loolu noonu dañuy jël benn joueur wala benn joueuse wax ak moom après euh, daal di daal di tëj euh, émission bi nga xam ne mooy Sénégal Basket Talent let's go alors euh, wax nañ ko su daam ba pare donc faa ñu jël benn joueuse wax ak moom xol. Euh, lan moo nekk fii ak yan la fi jànkonteel euh, si ñu ngi Binta une une brave fille franchement euh, xale boo xam ne li def boole na si fulla boole na fayda Binta maa ngi lay nuyu. maa lay fay. dama lay nga envers téléspectateurs yi. man ngi Bintu Diop. Mm-hmm. maa ngi basketé fii terrain mm-hmm. maa ngi basket 2019. ah fii moom mooy loolu am na entraînement am na lépp course ñu ngi ñu ngi joxe entraînement yu doy ñu ngi koy respecté et yaa am gën a xam. alo Binta yow yaa ngi yëg sa bopp biir Africa Sport Academy. ah maa ngi ko yëg suma bopp kay parce que entraînement yi doy na et yaa am gën a xam di nga na ba doyal match ba doyal et tout daal. Euh, léegi côté côté kii bi laay wax côté championnat yi. côté génn yi ngeen di génn foofu tamit yaa ngi ciy sa bop bu parce qu'on a vu que tu es reconnu euh ñu terrain buñ dem dañ naan ki dañ koy dowaate dañ naan bintami Africa Sport Academy la nek lolu sa sa sa yarute mo la ko may ak sa entraînement wala lan la oh, oh, genre comprendre ma dal dama bëgg nga expliquer ma genre xama lan la comme ça lo gis dal aduna lo gis xama nga gëm sa bop la et tout boo entraînement da ngay wane sa bop fonk entraînement yi moo tax boo demee match da ngay prouver boo demee match nag nit ñi si lañ lay gisee ngay def ay match yu rafet ñu naan kii di patati binta lii di dégg binta loolu rek la dañ lay gis bu ne. loolu léegi yow yow lan mooy sa ambition yow yaa ngi rêvé lan si si basket bi. man maa ngi rêvé dem bay jouer équipe nationale. ñu dégg ma équipe nationale. kan mooy sa idole. <laughs> jaamu ren. jaamu ren. daam leen biyee. yeah. <laughs>

ñaan na yàlla kay dem ba dimbali académie bi ba nga xam ni dañ koy xam dañ koy xam au niveau national yëpp dañ ko fay xamee ñaan na yàlla lu def loolu. léegi ma xaar la dans combien d'années euh, nga nga dem nga dem use ba. ah ñaan leen rek. yàggatul yàggatul. temps yi rek. temps yi rek. Ah. Uh-huh. nga nga nga daggal ma billet sax ma ñëw foofu ñu def. bu leen wax dara dagg bi ak lépp laay def bu dañ lay bàyyi nga tàggatoo ak euh, ñi lay seetaan. ah maa ngi leen maa tàggatoo ah. waxal maa leen tàggu ah, di leen di yéen ñii tamit gudd fan ni ngeen bëgg yàlla defal leen ko et tout ngeen ñaanal ñu tamit ñu bëgg suñu basket bi ak suñu jàng bi ak yëpp ah mm. yàlla defal ñu ko ah, ñu dem ba ñuy tudd daal fa sori ba jàppale suñu parent yi ak suñu coach yi et tout ñaan nañ yàlla loolu alors merci de rien je t'en prie <laughs> alors euh, amis téléspectateurs amis internautes fu ñu dem rek génneel leen li fa nekk coach bi wax na lu am solo joueurs bi ñu côtoyé tamit wax na lu am solo li lépp bi Teranga Sénégal TV nga ko mën a amee. on veut savoir on veut comprendre le monde sportif surtout sur le plan basketball bi nga xam ne nekk na loo xam ne dafa sooxe biir Thiès sooxe biir Sénégal. loolu lépp euh, Sénégal Basket Talent da koy tënk pour wan leen jàngal leen xamal leen euh, on se donne rendez-vous je vous le dis on se donne rendez-vous si championnat petite catégorie B, parce que petite catégorie B, nous nekk euh, avec euh, les garçons en 97 avec les filles en 2015 nous rek ñooñu ko toute la population chessoise. Euh, ñu ngi woo ministre sport bi nga xam ne Thiès la dëkk DT yi ñëpp ñu ngi leen woo ñu ñu championnat petite catégorie bi ñu ñëw jàppale aussi euh, équipe bi ma seeti tey Africa Sport Academy ah je vous dis euh, rendez-vous autrement si un terrain avec votre pétillante Banna Kara sur la Teranga Sénégal TV dans Sénégal Basket Talent merci